nga ne dañoo war a libérer Bassirou Diomaye à la faveur de la loi d'amnistie Bassirou Diomaye a été libéré euh, mu am nag ñoo xam ne dañu jàppoon ne Bassirou Diomaye waroon nañu ko bàyyi mu profiter euh, du manteau victimaire euh, de la de la de la de la détention alors libé une fois libéré est plus fort ou moins fort d' abord maa ngi rafetlu bu baax ci ni mu ko libéré parce que man bokk naa ci journaliste yi doon wax naa candidat la dañ ko war a bàyyi mu génn comme candidat yëpp dem fépp campagne fépp wax li mu xalaat wane programme alors moom vraiment kontaan naa lool ci niñ ko libéré maa ngi rafetlu aussi li ñu libéré Ousmane Sonko parce que ca dëgg-dëgg ay la yëwén Ousmane Sonko yàlla daf ko defal cër ak place ci histoire du Sénégal bu doon koo xam ne aussi sénégalais yu bari dañoo jël seen yaakaar teg ko ci moom yaa ngi dégg mu am parti boo xam ne aussi kum neex ak kum naqari yàlla def na réalité politique la ci Sénégal donc vraiment mu nekk ci biti di liggéey di xeex pour démocratie Sénégal moo gën ci Sénégal mu nekk président donc loolu aussi maa ngi koy rafetlu bu baax a mais man bu may def analyse politique damay jàpp ni boo xoolee bi jëmaay génnee ba wax ba ñu gis ko euh, dama jàpp ni bu toogal ci kaso bi lay gën a baax ci nitam moom en tant que candidat waaw man loolu laa jàpp loolu laa gis parce que bi nekkee ci prison bi dañ la wax jomaay jomaay mais kenn gis ko waaye nag bi ñu génnee ba ñu gis ko moom mu wax ak yooyu daal man jàpp naa ni bi mu nekkee ci kaso bi moo gënoon. ci nit politique laa ci nit moom en tant qu'homme politique. mais est-ce que loolu du c'est pas plus un discours des de ces de ces de ces dictateurs parce que ñu ngi leen di gis ci campagne bi euh, mu ngi nekk ak mu ngi nekk ak Sonko et il y a les foules. man du ma détracteur non non non est-ce que euh, argument boobu est-ce que ñoom ñoo nekk di di émettre ces jugements là non man dama dama lay wax man li ma sentir en tant qu'observateur maanaam nit kuy xool surtout que man nekkuma Sénégal man maa ngi France sori naa donc maa ngi xool bi door am naa retour voilà dama ne la mitam bi mu amoon ci kaso bi bokkul ak taxawaayam tey bi mu génnee ba wax ba jëf ba pare toog yi toog bi mu jëkk a toog ak Sonko Sonko daf ko écrasé de trop de trop déjà ci colin bi rek kii mi ngi sol grand mbubb mu weex bu rëy kii sol mbubb bu ndaw bu somp mel ni ku toog ak euh, du ma bëgg ma sax ni moom ko ko Sonko buy wax du tudd sax turam kii lay wax kii kii kii kii te ba caa ku ma ne ko sëñ bi demal defal sa sikkim beeg yooyu vraiment je trouve que Sonko dafa écrasé de trop ba pare aussi ni muy waxee bu Sonko taxawee. dangay xam ni daal vraiment euh, je ne sais pas bon bref sénégalais nag moom ñooy nañu xam de euh, façon. alors euh, la présence de Sonko aux côtés de Diomaye da bokk ci ñu jàpp ne daf koy daf koy daf koy néewal. daf ko daf koy daf ko war a bàyyi mu demal boppam. ba pare ci boppam boo xoolee expression corporelle xam nga àdduna làmmiñ day wax yaram day wax. kanam day wax léppay wax boo xoolee expression corporelle la bu toogeeg Sonko baaxul ci ku bëgg a war a jiite réew bi non loolu waa parce que sax xam nañ ko parce que Sonko benn moment mu dem bàyyi ko moom rek xam naa loolu moo tax parce que aussi dafa am yoo xam ne ni ku mën a sedd da nga koy gis.